direction bi ñu dénk wàllum coopération décentralisée amal na tey ab lël ginnaaw biñ ko toxalee ci biirum ministère collectivité territoriale waxtaan waxtaan ci mbirum coopération décentralisée euh, xam ngeen ne direction coopération décentralisée mosoon naa am ci ministère bi mais dafa dañ ko dindi woon euh, léegi nag euh, président Macky ci vision mu xam ne pour ñu matérialiser euh, PSE à travers son axe 3 bi wax gouvernance ak institution wala bokk ngir ñu gën a mën a doxal euh, acte 3 de la décentralisation il euh, il fallait ñu delloosiwaat direction de la coopération décentralisée mu delloosiwaat ko ci décret bu nga xam ne jël na ko fal njiit lu bees buy war a saytu mbir moom alors njiit loolu nag moom moo jël initiative woote ndaje tey bu nga xam ne dafa ëmb mboolem ñi ñuy jàppale ci wàllu koppar gis nga leen ñu teew fi mboolem réew yi nga xam ne dañu dañu am ak jàmm Sénégal ba am fi ay ambassade ñu yónnee fi ay ndaw waaye organisme sous-régionaux yi aussi notamment UEMOA moom itamit mu yónnee fi ki nga xam ne moo ko teewal ci ci Ndakaar. jëwriñ bi ñu dénk wàllu googu di Modou Diagne Fada. dikkaat na rek ci ñetti ponk yi ñu doon waxtaanee. coopération bi war a am mooy lëkkaloo bi war a am diggante collectivité territoriale yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ndax uh, am na tey lu collectivité locale bu Daaru Musti am te xañ na collectivité locale bu ndàngal ma amu ko ñu mën a waxtaan seen biir seet nu ñu mën a dimbalante. loolu mooy coopération nationale alors coopération mais aussi euh, ñu xool euh, ñaari collectivités locales yu dend euh, nan lañ mën a boole seen doole pour taxawal ay projet yu nga xam ñoo koy bokk loolu la ñuy wax intercommunalité alors bu loolu jàllee aussi ñu def ñu wax ci collectivité territoire coopération entre collectivités territoriales yu Sénégal ak yu nekk bitim réew moo xam France la ñu nekk moo xam Maroc la ñu nekk moo xam beneen réew la ñu nekk ñu xool nan lañ mën a jëlee benn dëkk bu nekk euh, ci dëkk yooyu mu jàppalante ak benn dëkk ay dëkk yu nekk Sénégal muy coopération nord sud pour kenn ku nekk tamit mën a jëriñ sa sa sa morom loolu tamit dañ ci war a waxtaan xam nañ ne AMS mu ngi ciy liggéey xam nañu ne euh, ressortissants yi nga xam ne dañu nekk bitim réew ñu ngi jàppale. seen i seen i collectivité territoriale waaye loolu yëpp nag dañ ko war a encadrer ah dañ ko war a encadrer te yaakaar naa direction de la coopération décentralisée loolu yi tamit ci li tax ñu indiwaat ko ci la bokk ñetteel bi nag mooy coopération transfrontalière mooy réew yi nga xam ne dañoo bokk benn frontière Euh, nan la ñuy mën a lëkkalee seen i collectivités euh, territoriales yi wër frontière bi. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom bile lël nekk na. lu ñëw ci waxtam ndax solos bi mu am. mu mu nekk lu lu am solo la te CCT nga xam ne mooy kuréel bi ëmb collectivité territoriale UEMOA bi chapeauté ko ànd ci ak UEMOA loolu exemple la rek bu ñu joxee mais yeneen réew. aussi war nañu mën a def euh, loolu. ci ñetti ponk yooyu yi mu yëkkati moom di Diagne Fada mu ngi insisté rek ci li ñu duppee.